dalee nag jàmm seen seen Production ñu bëri ñoo ngi naan kii di Lady jamaa bas moo ko daal di sonal si série bi mais nag sama gars yi mun nañ ni loolu noonu nekkul lu wér ndax soo xoolee nag parent mi ñoo koy forcé nag si li nga xamante ne moo nekk mariage boo xamante ne nag jëkkër ji daal na koy forcé ñetti yoon sama gars yi loolu nag lu ko waral muy nag jëkkër ji mun nañ ni yor na alal te tamit surtout nag sëriñ la ba tax na nag parent wu lii di Lady Diama yi ñu daal di koy teg fi nga xamante ne eggu fa ba gars yi ñu ne nag moom moo leen gënal euh, seen àdduna ak seen alaxira les loolu moo waral euh, lii di parent wa euh, Lady Diomaye daal di posé nag kii di Lady ñu def nag aveuglement daal di nag procédé waat troisième mariage bi te ñu ñoo xam nañ loolu noonu l'islam daganu ko ba tax na nag euh, si la kii di lady daal di préféré pour dem nag uti euh, beneen jëkkër su ko defee jëkkër joo bis bu ko waatee kii di alaaji dina daganaat pour rek mu mën a takkaat kii di euh, lady gaay mun nañ ni loolu noonu passewul comme prévu ndax kii di bas dafa daal di nopp nag ki nga xam te moo nekk lady si ay nopp yi gaaw sama gaay yi les gars na ngeen nag nar a xalaatee que ni kii di bas moom la nar doxalee ndax gis nañ ni jour mariage kii di lady ñëwaatoon dafa am sens nag euh, ba kii di euh, alaaji daal di koy gis ndax su ko gisoon dina demee neneen les gars ah, série bi nag gis nañ ni mu ñëwee gis nañ nag ay euh, problème yu indaale ba tax na nag si fin bi rek moom a gën a doy waar ndax mun nañu kii di Lady daal di ne nag demande jëkkër ji pour mu dem nag fanaane si otel alors que nag moom ak jëkkër jéene ñoo daal di joxante rendez-vous les ah, série bi dina saf trop si kanam ndax ñaari jëkkër yii nii rek si benn jabar loolu rek doy trop sama gars dam dama leen wax ngeen abonné nag bañ a tardé benn video si ñuy def